assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu suñu xalifa suñu yaakaar ci àddina boroom xam-xam bu mag boobu muy cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass mi nga xam ne tey moo taxawee suñu baay nekk suñu sëriñ nekk suñu kilifa ñu nekk ay taalibeem nekk ay jaamam nekk ay mbaamam ndax ci moom rek lañ yaakaar suñu lépp ci kaw àddina kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa euh, beneen yëf bi ci nekk mooy am na loo loo xam ni moom wax dëgg yàlla maa ko moomal sama bopp muy sama kilifa muy Cheikh Mouhamad El Mahi ni ngeen respecté yeneen kilifa yi ni ngeen fay demee ak ni ngeen fay toogee maa ngi ñaan sama mbokk yi muy patriote muy pouvoir muy kum mën ci doon soo leen demetee dee leen xool ni ngeen di toogee ak li ngeen warta def ci yeneen kër yi ngeen wane yar googu tamit ba bu leen ko def ci kanamu suñ kilifa muy Cheikh Mahi ndax kilifa la te moo représenté Mawlana Cheikh Ibrahim te moo nekk ci àddina bi yëpp foo tourné di nga xam ne Cheikh Ibrahim mooy sëriñu sëriñ si ci kaw àddina kon nag nañ ko respecté te jox ko cër googu maa ngi leen koy waxaat foofu laa am pour wax leen ci sama wàll kilifa beneen bi nag mooy ñun beneen bi mooy kenn ku nekk am nga sa liberté ci àddina am nga sa liberté ci wax am nga sa liberté ci gis-gis gis-gis gi mooy lan mooy fii ñu nekk muy Sénégal waaye fañ nekk mooy na bàyyi ndax gis naa ku ci nekk am nga sañ-sañ défendre sa leader waaye su ñuy wax nañuy waxante dëgg te xam lii dëgg tamit ñu koy wax parce que dégg naa ci ay waxtaan Macky Sall musta bëgg na Baye musu leen a bëgg nawloowu leen sax ba leen di bëgg barke Cheikh Ibrahima Niass te li may wax nii ku teg kaamin ma waat ko nañ leen waxante dëgg buñ naxantee buñ xool suñuy intérêt bopp ñu ciy wax déedéet buñ xool suñu intérêt bopp buñ xool ne dañuy bëgg dara wala ñu bëgg suñ poche fees wala ñu bëgg ñu far ñu dara wala ñu teg ñu fenn pour muy neex ba du ñemee wax dëgg non non Macky musta bëgg Médina wax leen ma benn feetu Médina baay boo xam ne Macky musu na cee ñëw amut du gàmm du ziyaara du lenn loo xam ne lépp lu muy ñëw Médina rek ñëwul spécial pour Médina day ñëw am programme Kaolack moo ko fay tax a jaar wala muy jàll fenn mu tax fa faa jaar nañ leen waxante dëgg fàtte yàggul Cheikh Ahmed Tidiane Niass al mu ngi nii wax leen ma ndax Macky euh, ndax Macky jaale si jaale si na ko nañ leen waxante dëgg wax leen dëgg ndax dafa ñëw jaalis ko dafa ñëw ci dëj bi ñëwu ci Fatimatu Zahra ca taawu Cheikh Ibrahima Niass kazalika mu ngi noonu ndax dafa ñëw jaale si leen kon lu ñuy toogee di wax makki man maa défier ñëpp Macky musta defal Medina Baye man maa défier képp ku mën a taxaw ne Macky dimbale na Kër baay defalal leen dara ñoo ko muy kër gan ak muy lu mënti doon kër gan ñun ñoo ko tabax bu leen fàtte ne suñ xaalis la ñun dañoo dajale addiya dajale addiya ci jumaa ji mooy ziyaare Baye ñu yëkkati xaalis boobu commencé ci liggéey bi ak leneen luñ dajale woon liggéey bi dem ba ci finition Macky ñëw àggale ñu finition boobu jërëjëf monsieur le président ci li nga def noonu finition nga ñu defal waaye tabaxaloo ñu da fekk finition bi nga ñëw dugal ci sa loxo aéroport bi projet la woon boo xam ne Sénégal yëpp la Souleymane Ndiaye moomu di oote ne taalibe bàyyi la ku gàtt kooku moom lañ joxoon wàllu liggéeyu aéroport yi muy bu Ziguinchor bi ñu ngi koy kii muy beneen ak beneen muy bu Kaolack bi muy fépp projet la woon buñ koy def waaye kër Cheikh Ibrahima Niass taxul ñu koy defar nañ waxante dëgg te aéroport baa ngi ne la ba léegi kenn defaru ko bañ ko daanee noonu dañ ko miire rek miire rek lañ ci def depuis kañ depuis kañ kon nañ bàyyi di takk Macky Sall président di wax gis nga wallahi jàppaluma ko dara duma ma noonam du lenam lennam parce que suy yukkal di am moom moo may njukkal ndax man maa ko liggéeyal yaa ngi dégg mais amoon yaakaar ci moom yaakaar ne koo xam ne la day taxaw defar Kaolack yaakaar ne koo xam ne la dafay ñëw taxawee ñu ñun ndaw Kaolack yëpp defal ñu dara mais ñu toog gisuñ dara ci moom ñu mën a taxaw fii naan ñi ay màkkeeg màkki nii màkki na stop nañ taxaw nañ taxaw waay te wax dëgg waay Médina bàyyi bëri na fa jeunes yi kenn màkki balaa ngaa xam ñuy wax ñëpp nañ oote seen mbooloo ñoom ñëpp nañ booloo ñu lay défendre foofu yëpp maa ngi défier ne leen nañ booloo ñoom ñëpp o seen mbooloo nga xool ndax di nga gis kenn kenn ci ñoom amut ñetti nit wala ñeenti nit te liñ lay wax dara du ci dëgg man MC man maa la ko wax man su may ànd ak damay ànd ci dëgg su may wax damay wax ci dëgg gis nga su may wax ci kaw laay wax damay yuuxu parce que dëgg jooju mooy nekk sama xol di génn ñëpp ñuy wax foofu billaahi wallaahi tallaahi amuñ benn nit bu leen topp benn benn nit bu leen topp ku leen di dégg na ku ci nekk oote ñoom ñëpp suñ dajaloo laa la wax nañ nekk téeméeri nit ñu oo seen mbooloo suñ ñëwoon laa wax duñ mat juróom fukki nit cinquante personnes mënuñ koo am te muy dëgg kon lu ma bëgg ñun Medina Baye ci lu ñu xamee woon ci xam-xam jàng àddina ñëpp a ñu respecté woon teg ñu ci yoon boo xam ne amoon nañ suñu complex parce que dañ doon wax ne waa na Baye xamuñ lu dul zikkar waxu yàlla ci loolu la ñu xamee woon mais bañ duggee ci politique bi di tappale commencé mel neneen léegi la nit ñi commencé yëpp te loolu ñun ñoo ko teg suñu bopp te waruñ koo teg suñu bopp arrêté leen ngir xaalis xaalis fajul dara nit dangay ngay diiñ yàlla ba mu lay sàkk teg la ci kaw suuf moom moom jaamam lu ko neex lay jox ci jaamam bi su ko neexee mu jox la su ko neexee mu xañ la te lim la wan yépp ci xañ geek ci jox bi yow mu war am ci àddina nañ bàyyi di ragal Macky sàll loo xam ne du dëgg nañ ko bàyyi di ko wax ci Mérina ku ci bëgg a nekk ambassadeur ku ci bëgg a nekk consul ku ci bëgg a nekk dara dem leen mën njaay di leen nax rek di jëriñu ci yéen ñun war nañoo taxaw di xool mën njaay raxma mii jël suufum kër Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass def ko ci turam loo xam ne suufu bàyyi la mu jël ko def ko ci turam ñuy wax mu naan promoteur la pour mu am financement il faut mu def ko ci turam nangam ba nga xamee ne munoo ko am yow promoteur nga boo xam ne mënoo koo liggéeyal sa bopp nga bàyyi ko fi ñu seet ñeneen duñ ay dof yéen a ngi gis loolu war koo kaas munoo leen koo kaas parce que li tax munoo leen koo kaas mooy ñaar fukki yu ñëw ci yéen ay deux cent mille yi ay cent mille yi moo leen doy ngeen di jënd seen dignité nga xam ne seen baay moo wax ne wala seen maam Cheikh Ibrahima Niass ne gis na leen ci addina bi ngeen nekk ay buuru jamono ku ci soxla ay millions soo tukkee dem am ko right ku ci tukki soxla ay millions soo demee nga am ko ngeen taxaw ab benn triant boo xam ne du dara muy mon njaay rahma taxaw ñëw jël suufu kër Cheikh Ibrahima Niass bi taxaw osé yéen ay setu baañas Niass wala ay njabootu baañas ñu taxaw di seetaan loolu kaasoo leen loolu kaasoo leen loolu suñu suufu baay kaasoo leen loolu ngeen taxaw di seetaan di ñëwaat naan waa màkk nii mu ñëw di leen di nax rek ñu ñëw di leen di nax yéen war ngeen a seet caatu Baye Niass bii war ngeen koo xool moom ñu koy topp ba muy daw moom yéen njabootu kër Cheikh Ibrahim Niass ngeen taxaw di tagg euh, Macky Sall yéen war ngeen a taxaw di xool nit ñi di ma sonal di ma utal problème ba ma daw man ci caatu Cheikh Ibrahim sama baay am lu mu liggéey ci àddina bi ma dëkk biir Sénégal nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg ndax loolu yéen war ngeen koo seetaan tey war ngeen a toog di tagg di tagg Macky Sall ci loolu yéen ay njabootu Cheikh Ibrahim taxaw di ko tagg moom naan defal nañu ni defal nañu laa ba pare ñu jël caatu Baay bi topp ko ba mu daw dellu Amérique ci loo xam ne ci ay dëgg rekk laa taxaw gis dëgg jotewumaa kenn dëgg laa gis di wax dëgg nañ leen waxante dëgg waaye te bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi suñ caaxaan yi nañ bàyyi li ñuy wax te gëmuñ ko ngir alal nañ xam ne ëllëg dañuy dee te buleen jàpp ne képp ku dee nanga xam ne bés ba ngay dee bés boobu mooy sa mbugal suñ waxee ñu naan waaw lu mu mënti doon ci famille bi maa ci mel nii yeah amul problème parce que man maa nekk bañkat kenn du ma noot ci kaw àddina kenn kenn kenn ma noot ci kaw àddina loolu dama koy wax kenn du ma noot am naa kilifa nag sama kilifa mooy sama sëriñ Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass su ma waxee léegi na ma sukkal nga raam wallahi lazim ma raamee ba fu mu bëgg su bëggee yeeg sama kaw ma boot ko ndax mooy sama Cheikh Ibrahim te Cheikh Ibrahim Niass rek laa bëgg lu may kaas du dara li may xeex du dara li may xeex yëpp pour njëriñu Kaolack la ak njëriñu na Baye gi ma dëkk loolu rek laay kaas kaasuma leneen soxlawuma leneen dama bëgg ñu xam suñu bopp xam ñun ñooy ñan xam kan mooy Cheikh Ibrahim ak lim ñu liggéeyal ñu bàyyi di tagg Macky di wax naan Médina Baye lim ñu defal ak lim ñu defal lan la ñu defal na kenn taxaw ne Macky Sall jox nañu ñun ñun njabootu Baye gi lan lañ ko mus a lekkal man de cent vingt mille lañ ma mus a jox cent vingt ma delloo ko papi may ma yaa ngi oote cent vingt mille lañ ma mus a may cent vingt mille yi ma delloo ko te moom lañ mayoon njabootu Baye Niass yëpp ci gàmm wax ma ban njabootu Baye Niass ku mën a taxaw nañuy bàyyi nañuy bàyyi di diaboliser di wax ne Macky mu ngi indi lii mu ngi indi laa ci na Baye mu ngi def daal gisuñ ko man de ci njaboot gi laa bokk gisuma ko gisuma ko bokk mësuma koo gis mësumaa gis alalu Macky ci njaboot gi laa bokk mësumaa gis alalu Macky barke Cheikh Ibrahima Niass kon lan la ñu defal nañ arrêté sañ delluwaat ci liñ war a dellu mooy lan gëm-gëmu Cheikh Ibrahima Niass ay jàngaleem ca lam ñu tegoon ca daara ja nga xam ne ñun suñ soxlaa soxlaa luñ gouvernement gis ngeen képp ku àndut ak kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko yow danga ngaa sa réew wala da ngaa bëggul avancement ci sa réew wala da ngaa sa njaboot parce que lim ñu wax moom ci loolu rek lañu jàpp dafa ñëw taxaw 15 ans di liggéey mu sa lekkal kenn dërëm mu taxaw wax ne mu ngi xaar kenn defiyee ko ñu ne deetawaay mu ne li ñu war a def mooy ànd nawle ak tubaab bi suñ demee bay waxtaan man mu moom sama suuf su ma amee 60 tubaab bi am 40 wala ma am quatre-vingt mu am vingt loolu développement la discours yu mu génne wane ne sëriñ si ñu koy diaboliser temps yi di wax sëriñ si yéen seetlu leen ñuy tontu ñëpp lan lañ doon ci kër sëriñ si gis ngeen nañ bàyyi kenn kenn benn nit koo xam ne rek mun ngaa nekk sax doomu sëriñ ci biir sëriñ si fekk yow taalibe yi dégluwuñ la soo demee benn nit dégluwu la da leen bàyyi xel yéen ñun patriotes yi nañuy bàyyi xel ci ñii di wax ni buñ leen déglu tojuñ fenn wallaay laasim tojuñ fenn te mënta neex a neex wala naqari naqari incha allah ba présent Sonko du nekk cinquième président Sénégal loolu maa ngi leen koy wax. dana métti dana métti lool ndax dara yomb ci kaw àddina maa ngi wax ne lim ñu incarné wax ko. nañ leen ci jàpp doomu daara yi nañ leen jàpp ñu gëm nañ leen jàpp te incha allah wallahi dana metti dana metti waaye mu neex mu naqari sonko mooy jël réew mi kon loolu laa amoon pour wax maa ngi jégalu ci kàddu yi xam ne naqar moo ma metti rek ndax suñ toogee di tagg Macky sàll di wane ne dafa liggéey ci biir Médina Baye man mii may doomu Médina baay ñu sonal ma ba ma daw man man ba ma daw man pare woon naa ci Amérique ñu sonal ma ba ma daw ñëw toog fii làqatu si nëbbatuwuma de damaa daw toog làqatu si carrément nëbbatuwuma ndox man dëgg lañ ma xamee ma daw ñëw làqatu si ndax ki ma sonal mooy président de la république wala ay ñoñom ñoo ma sonal ci dëgg rek dëgg gu ma def ba pare ñu toog seetaan ma man en tant que doomu Cheikh Ibrahima Niass ma daw ñëw làqatu si ñu taxaw di tagg kooku naan nu mu bëggee Mérina li mu defal Mérina lan la defal Mérina su defaloon Mérina wala bëgg Mérina man mii di doomu Mérina dina taxaw man sama baay nga xam ne maa Alaaji Abdoulaye Niass dafa jógee ba Jolof ñëw xare biir Saalum ba dëkk fa man danañ ma génne man te Sénégal suñ ko doon séddale tey damay am sama wàll ci maa Alaaji Abdoulaye damay am ci sama wàll ci ki nga xam ne tamit mooy Lat Joor Ngoone Laati Jóob ñaar yooyu seq ma man war naa mën a daw man war naa mën a daw waaye ñu ngi dénk suñu bopp yàlla te yàlla danañu samp waaye dinañ wax du tere li nga xam ne mooy dëgg ak li ñu nekkeek yow du tere danañ la wax dëgg googu amoo yërmande monsieur le président parce que sax xeet yëpp ñun dañ laa jàppale te yàlla rek tax fal la nga tourné jëlaat sa peuple di leen mbugal ci yërmande guñ amoon ci yow kon yow amoo xolu yërmande te loolu lu leer la balaa nga xam ne amoo xolu yërmande liiral sa bàjjan bee mu ngi ci sama Facebook lam doon nettali man ba ma seetaanee loolu ci laa xam ne président ku ko neex mun na laa rey ku ko neex mun na laa rey ku ko neex mun na laa faagaagal ndax sa bàjjan aqan taxaw na ñëw na ba ci palais bi ñu yëkkati cinquante mille di ko ko jox ah ci laa xamee ne kii pare na pour rey ñëpp nag waaye ñun tamit ñu lay jox suñu bopp nga pare wax naa la ne la fa ngay mujje wallahi mujjee gu ñaaw ngay mujje te nag na nga xam ne bis boo wàccee international bi danañ la àtte américain yaa ngi sa kaw na nga xam ne européen yëpp a ngi sa kaw kon gars yi maa ngi jéggalu du ma guddal di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm Sénégal yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ci barke rasulullah am na ko mën na ko yàlla na ko def kontaan naa bu baax jërëjën jëf maa ngi jéggalu encore di jéggalu samay mbokk taalibe di jéggalu famille bi xam ne mer rek la en tant que doomu Baay Ñas caatam ñu ñëw ñu taxaw may gis ñuy tagg Macky sàll naan li yëg li yëg li yëg te loolu dara di ci dëgg kon Macky deful dara ci Médina maa ngi koy défier suñ gisee lenn lu mu fa def rek nañ ma ko wax te nag li ma xam dafa bëri li ma xam dafa bëri te li ma yore dafa bëri waaw li ma xam dafa bëri li may yore ci biir Médina nañ def attention loolu laa amoon pour wax salaamaaleykum wa rahmatullah MC Niass la woon